salawaatullahi wa salaamuhu alayhi thumma amma baad wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak kontante ci ñëwaat ak yéen ci daara ji ci tooli alquraanul karim ci leeri alquraanul karim ci géeju alquraan ngir witt. ak niitlu ak féey ci xéewal yi nga xamante ne nii moom la yàlla subhaanahu wa taala def te xéewal yi li ñuy màgg màgg bi ci gën a rëy moom mooy mu jox ñu alquran mbokk yi incha allah tabaraka wa taala comme ni leen ko waxee ci ñaari émission yi jàll yépp dañuy ñëw ak yéen nag tey ci saar wi muy suuratu naxli yàlla subhaanahu wa commencé ko wax baada aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim ataa amrullahi fala tastaajiluuh subhanahu wa taala amma yushrikun yàlla subhanahu wa taala nee na ataa amrullah yéen ñiy weddi yowm alqiyam ataa amrullah yowm alqiyam ñëw na fala tastaajilu jarul ngeen koy yàkkamte alqur yowmal qiyaam ñëw na ba pare jarul ngeen koy yàkkamti nga amee ci ak dégg xam ni ko ndagate ñëw na gii muy wax bi maanaa jigéen a déglul bu baax yàlla dafa wax ni ataa amrullahi ba pare daan ni fala tastajilu muy ñaari wax ataa amrullahi yowmal qiyaam ñëw na ah ba pare mu daan ni fala tastajilu jarul ngeen koy yàkkamti da nga ciy amee ak dégg ni kon ndakate ñëw na gee mu wax ci commencement saar wi ni ata amrullahi ñëw na firiwul dëgg-dëgg ñëw na mais bi maanaa xaru ba jige na te lu xas ba jege daanaka ñëw na waaw tabaski gi da dégg gaay naan gi da ñëw na waaw fu fu fu weer wi teroo rek nga commencé dégg ñun tabaski gi ñëw na guddi yi may wax ak yow nii gaay yaa ngi naan tam xarit gi ñëw na te moo ne ñëwagul mais waxin la ça veut dire que jigéen na yàlla subhanahu wa taala daal di wax ni ata amrullahi fala tastaajilu subhanahu wa taala amma yushrikuun li may wax nag ci wàllu làkku arab la yàlla dafa waroon a wax wala bokk li ñu waroon li ñu xaar mooy subhanahu wa taala amma tushrikuun mu daan ne amma yushrikuun loolu la ñuy tudde ci luxa wala ci balaaxa iltifaat iltifaat lañ koy tudde iltifaat nag mooy gersu mooy may wax ak yow jékki-jékki mel ni waxatuma ak yow kaneen laay waxal ma jàppe woon la yaa ngi sama kanam jékki-jékki jàppe ni nekkatoo sama kanam loolu lañ tuddee iltifaat yàlla loolu moo tax mu def ko fii ci aaya bi ngir tuutal ngir doyadil yéefar yi ndax yàlla dafa wax ni ata amrullahi fala tastaajilu ba pare mu daan ni subhaanahu wa taala amma yushrikun subhaanahu tudd na ak sellam subhaanahu sell na moom yàlla màgg na bokkul ak yi nga xamante ni nii moom lañ koy booleel moom lañ koy bokkaaleel subhaanahu wa taala amma yushrikun yi ñu koy bokkaaleel ngay ñii di jaamu laata ñii di jaamu manaata ñële di jaamu hubal ñeneen ak ñeneen ah, yii ñuy bokkaaleel yàlla yàlla subhanahu wa taala nee na yooyee ay neen lañ moom yàlla subhanahu wa taala moom kese moom moo fi nekk kon mbokk gis ngeen yàlla ni mu commencé saar wi ata amrullah ah mu daan ni fala tastajilu subhanahu wa taala amma yushrikun yàlla teg ci nag lu yéeme yunazzilu almalaikata birruuxi min amrihi ala man yashaau min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaquun yàlla subhaanahu wa taala daal di wax ni moom moo wàcc jibril yunazzilul malaa'ika mooy kiy mu wàcc al malaa'ika mooy malaaka yi waaye fii yàlla dafa tudd malaaka yi jublu ci jibril waaw loolu it waxin la yàlla nee na man maa jox jibril ndigal mu wàcc kaw suuf dem ci yonent yi di leen informé di leen jox ay téere ku sa heure jeex nga daal di dem waaye tamit boo laataa dem dinga nga déclarer ne am na benn yonent buy ñëw mu jug jamono lu muy tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Muhammad it Jibril moo ñëw ci moom yonent bu mu doon balaa dem déclarer mbiram. ndax na nu ndaa na ni yàlla ñu jox lu ñuy daane benn waaye day tag yonent bi daan ni yonent bu mu doon bala dem déclarer mbiram waaw yonent bu ñew rek dina rek li amna kuy ñew mu muhammad sallallahu Alaihi wasallam yalla subhanahu wa taala nak neena man ma wax jibril mu wacc ni ko demal ma ci muhammad joxal mako alquran yunazzilul malaikata bir ruhi mu yor li nga xamanteni mom modi alquranul karim mbokki jibril yàlla tudde na ko ruux ndax moom moo yor alquran doon ko joxe waaye alquran ji ñu téye nii di ko jàng yàlla subhaana wa taala daf ko tudde ruux te fii nii ci aaya bi fii moom lay firi yàlla moo wax jibril mu wàcc ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit kazalika moom yàlla subhaanahu wa taala moo jox jibril alquranul karim ngir mu jox ko yonent ngir yonent bi salaa salaam baaxee ñu ko moom lay wax ni yunazzilul malaaikata bir ruuxi waaye nag xoolal min amrihi ci ndigalam waaw ndeysaan yonent bi mus naa toog lu yàgg gisul jibril ba jibril ñi mën ko waaye rek fee gëj jibril ni ko ah man ndigalam may wàcce de du heure bu ma neexee rek ñëw de saa yu may ñëw rek dañ ma jox ndigal ni ma demal bu ma joxul ndigal du ma ñëw waaw waaw beneen bi yàlla daal di wax ni ala man yashaau min ibaadi yàlla ne na may tànn ku ma neex def ko yonent bul ko dégg nag daan ne ah kon sabab sëriñ bi ab yonente la de wala sama maam diw ab yonente la de déedéet yonente yi jeex na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jeex waaye nag la ko dala sa yonente bi jëm kaw ci yonente yi ko jiitu yépp ñoom ñëpp yàlla subhanahu wa taala moo leen tànnoon waaw parce que yëfri màkka dañ doon wax ni daal euh, Eh, yàlla mënoon naa tànn kenn ku dul Muhammad di ko yónni am ñu wax ni waa Taif ba yonent bi saa salaam demee Taif waa Taif ñoo waxoon loolu wa qaalu laa nuzila hada alquran ala leen ba xam yéen ahum yaqsimuuna rahmata rabbik bi gaa yi ne bi gaa yi ne waa eh, yàlla mënul woon xool keneen ku dul bi yàlla neen yéen yéenay xool may wax ku may xool ahum yaqsimuuna rahmata rabbik yéen yéen a may xool ku may tànn pour def ko ab yonent tànn naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir lan ngir mu ñëw daal leen di xupp an andiru annahu laa ilaha ana fattaquun yàlla subhanahu wa nee na man ma tànn yonent yi ngir ñu ñëw pour tiital leen pour ngeen ragal yàlla xam ni yàlla subhanahu wa taala moom kese moo fi nekk mbokk yi sew-sew bi fi am foofu yàlla dafa wax ci alxuraan ni yeneen ti mu yónni yëpp dafa leen a yónni bashiran wa nadhiran dañoo ñëw ngir bégale waaye ngir xuppaate te ci saar wi fii deuxième aay bi yàlla dañu maa yónni yonent yi ngir ñu xuppaate kase indiwul bégalaate nga daan ni ma lan moo tax ma daan ni la parce que yàlla subhanahu wa taala yéefari màkka la doon waxal te ñoom instant boobu ñoom ñu tiit moo gënoon a placé wu foofu looloo waral ci commencement saar wi comme que yàlla tudd na gaa yi koy bokkaale te ñooñu instant boobu loolu lañ gën a soxla mooy ñu tiital leen pour ñu gëm a yàlla kenn la moo tax yàlla ci commencement bi waxul ak lan ñuy bëggalaate mais mu daal di yem ci rek ñuy xuppaate mooy an anziru annahu laa ilaha illa ana fattaquun ngir ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala moom kese moo fi nekk mbokk yi bu ngeen xoolee commencement saar wi yàlla wax na ci yow man qiyaam ñu jógeeti fa mu daal di dugg ci li nga xamante ne nii moom moo di bokkaale gi yéefari di bokkaale waaye tamit kazalika mu ni moom moo wàcce jibril jox ko alquran mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam waaye li ci gën a yéeme yàlla subhanahu wa taala daan ni yonent yooyu dañoo ñëw ngir tiitalaate pour ñu xam ne yàlla moo fi nekk yàlla saa yi teggee dara nag day teg dara yàlla bi mu waxe lolou nak ba pare mu dal di dugg ñun nak ci mbir yi wone ni mom yàlla mom kasse mo fi nek motax nga dal di am beneen aaya xalaqa samawati wal arda bil haqq taala amma yushrikun خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ما شاء الله يا الله سبحانه وتعالى أن خلق السماوات والأرض بالحق ma bind asamaan juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf te maa ngi bind ci dëgg ay caaxaan taxul ma bind ko waaw loolu yàlla mu ngi bëgg a xamalaal yéefar ñi leen bind asamaan a suuf moo gën a metti yàlla dara mettiwul ci moom mais bind asamaan suuf moo gën a yéeme bind nit la xalqu samaawaati wal ard akbaru min xalqi naas yàlla subhanahu wa taala bind gi ma bind asamaan ak suuf moo gën a yéeme fuuf bind gi ma bind nit nit yéemewul asamaan a ko gën a yéeme mbokk yi kañ nga juddu woon ba léegi yaa ngi xool asamaan si téenal nga xool kaw asamaan amul benn poto bu ko téye nga koy gis ba nga juddoo ba léegi mu ngi la tiim yi ciy génn di ci génn nga gis niir yi bu nawet bi ñëwee nga gis taw bi muy wàcc nga gis jant bi gis weer wi bu guddee mu lëndëm su bëccëgee mu leer yàlla subhaanahu wa taala nee na loolu xanaa mun nee na doy kéemaan ngeen xam ne yàlla moo fi nekk yàlla nee na kon bokk na ci bunt yi nga xamante ne nii ci la ñuy déparé ak yéen ci saar wi pour nga xam yàlla mooy boroom asamaan deel jékki-jékki yéeg sa kaw terrasse nga taxaw tiim asamaan si xool ko surtout guddi nga xool asamaan si càmbar ci yàlla subhanahu wa taala gis nga xalaat yooyu nga xalaat moo lay may ngëm yàlla looloo waral yonent bi waxoon ci xadis ba daan ni wa rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu bokk na ci ñi yàllay keral yowmal qiyaam bis ba nga xamante ne nii ker du fa am lu lu kerug yàlla subhaanahu wa taala waa joo xamante ne daan wéet di xalaat ci li yàlla subhaanahu wa taala bind di xalaat ci li yàlla bind ci li yàlla créé mën nay xalaat ba xalaat ci jëmmam ji kooku bu yowmal qiyaamee yàlla subhaanahu wa taala daf koy keral kon mbokk yi gis nga yàlla commencé na dugg ñun ci ay détails nag waaw di ñu wax yi nga xamante ne ni moom kese moo ko bind su ko defee kaneen ku fi taxawaat ni mooy yàlla nga ne ko ba xam yaa bind asamaan gis nga moo tax Moussa Moussa yonent yàlla Moussa ba ko Firawna ne kan moom moom adduna bi ah qaala Firawna maa rabbul alamin Moussa lan na ko tontu qaala rabbu samawati wal ardi wa baynahuma in kuntum muqinin yàlla moom asamaan moom suuf ak li nekk ci diggante yi kon nga gis ni yàlla subhanahu wa taala wax na ne moo bind asamaan moo bind suuf te benn bu ci nekk yàlla dina ñëwaat ay détails ci biir saar wi te dina ci ñëw moo tax fi ne ni dañu firi rek ah, ah mu ngi noonu taala ma shikun xalaqa al insana min nutfatin taqsiimun mubiin allahu akbar mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala nee na moo bind ki nga xamante ne ni moom moo di nit ci toqantalu manuyu yàlla bàyyiwul de ñëw rek ni maa bind ni déedéet maa bind nit ci toqantalu manuyu min nutfa al nutfa wax nañ ni mooy al maa u saafi al qalil ndox mu tuuti ba pare set wicc ci arab dañ ko tuddee al nutfa ab ndox tamit boo ko tegoon fii defoon ci ndox sotti ko toq toq ya des sa biir dañ koy tuddee an nutfa ci arab ndox mi génn ci ku góor ba nga xamante ni doom ci lay sosoo dañ koy tudde nut fa yàlla nee na ci ndox moomu laa bind doomu aadama waaye li yéeme ci mbir mi fa ida huwa xasiimun mubiin doomu aadama ñëw àdduna bëri wax yàlla ko wax de mu ngi nii yàlla ne doomu aadama ak bëri wax fii laa ko wax mu jaar fi pour xool ma xam ma mu ni déedéet day jaar faneen pour jéem a xam yàlla dafay sonn te du bàyyil xuloo bi bàyyil xeex bi nga jéem a jàng al alquraanu karim xam lan lay firi xool nan la ko yàlla orienté nga jéem cee jaar fa ida huwa xasim alxasim ala wazni fail yàlla leen doomu aadama dafa mën a xuloo dafa mën a werante ñëw na weddi yàlla daal di kere yàlla boppam di ko jaamu yàlla subhanahu wa taala ba pare nee na xasimun ba pare mu ni mu mubiin dafa mën a xuloo xuloo bu leer loo ko wax mu teg xel moom doomu aadama daal di weddi kon yàlla subhaanahu wa taala nii la commencé li nga xam te moom moo di suratu naxli ginnaaw bi mu bindee asamaan ak suuf mu daal ci teg maa bind nit lan moo tax mu jiital asamaan ak suuf mooy li ma leen waxoon bind asamaan ak suuf moo gën a yéeme bind nit moo tax yàlla daal di ñëw yooyu foofu après nag ci la commencé nag daal di lim xéewal yi nga xamante ne nii moom la ñu defal insha allah tabaraka wa taala suñu jotaay bii di ñëw yooyu la ñuy ñëw ak yéen xéewal yi nga xamante ne yàlla subhaanahu wa taala defal nañu ko ñun te mu nekk ci lu ci wàllu jur gi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp jéggal suñu bakkar ak suñu rëcc lu fi nañ ko sant yalla lu fi ngeen jéggal ñuko inshallah tabarak wa taala bu bari ñoon di jaajëfal ñi àndaloon ci liggey bi alaykum wa rahmatullahi wa lu len ci alquran def len ko lek def ko nan ma nga mi andiko na len jaral sonu bu na